asalaamaaleykum mbokk jullit man maa ngi leen di siyaar man Lamine Diop maa ngi dëkk Thiès euh, quartier Thiali nekk benn artiste ma ñëwoon fii ci monument renaissance bi ngi nuyu ñëpp. li ma yor nii moom sama vélo la moom maa ngi ko tuddee Cheikh Ibra at bu ne moom ma yóbbu Touba ci at yi moo yi ma ko jot a yor ñaari at yoo xam ne moo ma yóbbu Touba moo ma yóbbu Poroxaan maa ne nit ñi buñ ko seetee dinañ ñenn ñi nañ confirmer dinañ confirmer lii bidon la bidon 20 litres yi. samay bagage laa jël sama yére mom mau jógee ties ci suba xam nga solo ko ay dal ni modifier ko baru auto li mom moy klaxon bi ni sama glacière la bo xam ne ndox laa ciy def su nan ma soxla ndox gis nga ndox souvent ndox naturel laa ëpp lu def quoi parce que ndox bu sedd lay xaw a sonal. lii potu ndaal la nday naa ne sëñ Fallou bi lii la waaw bi daal innovation la bi mun naa ne bi mooy troisième innovation bi ma liggéeyee ko Thiès nag nekk benn artiste boo xam ne du lii rek moo laay defar maa ngi liggéey ak yeneen décoration bâtiment menuisier la en même temps man je moy sama profession sax mais manki bolé ciy ak yeneen artiste la dal buy gor gor amna ci moto bo xamné momi ni la mel ma sha allah mom la yobone ci ñaar rakk ya ndar. sama dernier mo moy kané ar aar baa ngi nii daal te ñun ay artiste lañu ñi ñu ngi ci yeneen ak yeneen sama contact moy 77 036 07 07 77 036 07 07 à Lamine Diop kuma ma soxla moom mun nga contact ci numéro bobu bu ñi waxtaan yalla baax na daal. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout waa Thiès waa Thiali ñi ma jàppale sama koñ ñëpp waa Ngalam ñëpp maa ngi si su ma kii damay juum daal ba ci borom vélo bi nga xam ne ki ma may vélo bi ma ci am sow sama turandoo doom la sama xarit la xam nga moo mayoon vélo bi fekk mu wér am nerf sciatique ba mu wéree ci la ma may vélo bi ma innové defar ko nii di ko modifié waaw di ko sant di ko gërëm ak ñëpp daal bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum merci beaucoup.